ak sa sant Serigne Cheikh Fall ñoo ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla guddal sa fan wéral say cër ndax ku xam ndindi xam tawfeex xam sa taxawaay ndax bu ñu demee ba tawfeex nekk un deux trois ba liggéey nga liggéey bu am solo bari na ñoo xam ne ci dëkk bi ay chef de village la ñuy doon waxuma la chef de quartier wala ay chef de quartier yoo xam ne dañuy bëgg di occuper lu bare bare bari ba du ñu mën a attan yittey soxlay askan wi te duñ leen mën a xam ndax ku mel ni chef village ba ci chef de quartier dafa war a ràññee ci ñi mu dëkkal kon yow mën naa ni foo dem ba jàpp ne ràññee dina la tëre nga dagg ko jox ko keneen moo waral Serigne Pape Ndiaye mii nga xam ne zone bii nga xam ne maa koy coordonné moom mooy président d'honneur bi waroon na jël kàddu waaye comme xat-xat daa bari te ñu war a dem ci yeneen i ndaje ñu ngi xaar kon ñoo ngi koy jéggalu sëñ Cheikh El Hadj Ndiaye chef village yabaloon na ma ci yow 2017 ñu ñëw sa kër ànd ak délégation bi. muy ñoom xaadim ak ñëpp ñëwoon keroog muy ñii nga fi gis waxtaan ak yow dagaan la seen baat te def naa ne def ngeen ci lu am am solo ndax keroog bi ñu fi ñëwee élection yi ci topp demee naa ne keroog bi demee élection boobu defe naa ne zone yi nekk ci dëkk bi yëpp ñoo fi rawoon muy juróom-ñaari zone yi fi amoon yow liggéey nga ci liggéey bu am solo maa ngi sant sëñ Lamine Niang ak Serigne Bàcc Lamine dañu yàgg ndax sura la woon ak Baye Jili Jaw ba nim ñëwee fii tey jii Serigne Bàcc di suma xarit bari na lu baree bari loo xam ne dañ koy séq di koo xam ne ku am taxawaay la général nii wax na ko léegi nee na li ngeen di def da ngeen ci war a integre bàcc muy zone bi bàcc ñëw jàpp ci liggéey bi parce que su waxee di nga xam ni kii ku nit ñi déggal la kii ku am taxawaay fii ci koñ bi la kon bàcci ñoo ngi lay tàllal loxo parce que zone bi yaatu na fii ba boo ko Daaru Bogo ci la bokk su élection yi jotee ñooy dugg ci terrain yi maa ngi jiite délégation bi mais léeg-léeg ñu xat ba dugg ci gox yi bëree bëri daf ñuy xaw a tër ndax bëriwul fukki fan ak juróom lay doon balaa ñaar fukki fanam mu jeex te boo ñëwee sunu bii xëy na bu ñu fi deful programme programme yi ñuy am di ko mën a yaatal muy ñëw fii ci kon bi maa ngi sant Serigne Fallou nag ndax lii mu def tawfeex ñun ñii la ko defal parce que ay doom yi ñun leen ay doom yi tawfeex lañ tawfeex la suma kër nekk kon bu ko fi defee man la ko defal li soxna si wax sànq xam naa ko dama koy dund. parce que damaa ñeme terrain bi dama ñu koy wax nit ku ñeme terrain bi la fii ñi fi nekk ñëpp xamante nañ ndax luñ xewle ma dagg suma yitte dem te damay dem di leen seeti ba pare bu campagne jotee tamit ñu dugg ci ñoom defe naa ne loolu moo ñuy may léeg-léeg ñuy am benn résultat boo xam ne dana yéen nit ñi ci dëkk bi nga xam ne xëy na xaw naa dëgg ci coalition Benno Bokk Yaakaar ren jii ñoo ngi jëm ci ay échéances muy élection yu am am solo yoo xam ne Serigne Fallou Mbacké mii fi indi ndox mii président Macky Sall xaritam la te lii ñuy wax defe naa ne dina ko dégg ci média bi général mais ak Moussa Thioune di suñ xarit di ku baax dina ko jàllale te defe naa ne dana ci def ay ay saafara yu kawe kawe du fii la ko def nag wax dëgg yàlla defe naa ne bokkatul mubaarak ak fu bare bari foo xam ne maa ngi fay dégg ñu ne ñu ngi fay def ay ndimbal yu mel nii di jàppale nit ñi ci ndox yi di jàppale nit ñi ci lu bare bare bare kon Moussa Thioune général na ngeen ñu santal Serigne lu Mbacké te xam ne lii mu def fi rëy na dinaa ñëw tuuti parce que zone bii li tax ma jël fi kaddu mën naa jël kaddu ci turu zone bi ñii fi ñëw mën naa leen a dalal ndax fii maag yéen ñoo fi ko dëkk ndindik am na benn côté boo xam ne benn homme politique ñëw na fa nga dafay maye ndox indi fa ay tiwoom teg fa ne da ngeen di lijjanti ñu gas ko ñoo ngi ciy félicité sëñ Fallou ndax bi mu ñëwee laaj naa ko bàyyi jiili koñ bi sonn ñu ci gas bi am na ñu bëree bëri ñoo xam ne bu ñuy mayee ndox man maye naa ci ndox sax waaye dem leen wax dem leen ngeen gasal ko seen bopp kon sëñ Fallou Mbacke mi fay gas bi fay ñu ci war a def yëpp noonu toppatoo ko ñoo ngi koy sant kooku bi mu ñëwee dafa gasloo waa koñ bi ndox dinaa ko tudd Cheikh Abdou Baara Dooli la bi mu gasloo waa koñ bi ndox muy lu ma metti mu gas lu baree baree baree bare mu pare bëgg faa def programme waa koñ ba ne ko ñoom Moustapha ñoo fi nekk muy chef de ba mais li sëriñ bi ne ko ñoom dañoo fi nekk danañ fi ñëw ndax am na lu ñu diggoon ta booba léegi ñu ngi liggéey ak ñoom mu meraat bàyyi fa gas ba teg giraa koolam àqi koñ booba képp la ko dal fee nii leer na ma ne loolu la xoolal jigéen ñi ni root méttee ni yenn taxawaayu méttee même bu nekkee ne ànd ñoog yow lii nii day wareef ci mbir nga di ko def wax dëgg yàlla am day wareef vraiment kon ñoo ngi ñaax mbooleem kuy politique ak foo mën a bokk na dimbale askan wi tañ bàyyi wax ji yéen nag yéen ay ràññee ñiy dimbalee ak ñiy wax am na ñoo xam ne dañuy wax a wax ba fatt nit ñi mais du ngeen defal dara nit nag dafa war a ràññee ki koy jëfal ak ki ko jëfal ngeen jàppale ñu parce que fii soxla nañ ko te pour ñu fexe ba courant bi ñëw fi ak yeneen yeneen ak yeneen ñëw fi sinu kàddu dénk ngeen ñu ko mais yéen yéenay tax tamit sinu kàddu dem te bu ngeen ñu jàppalee ndax li ngeen ñuy jàppale seen carte yii fexe ba bu élection yi jotee ñuy am ndam ngeen génn wax naa ko nag nee naa bu élection boo wootee ndaje jigéen ñaa fay ëpp mais boo demee ba jouru élection yi alors jigéen ñi dañ fay néew fexe leen di mobiliser wu bu ngeen teelee pare añ ngeen teel a départ dem voté ji te ngeen voté coalition Benno Bokk Yaakaar ndax sëñ Fallou Mbacke mi fi def ndox mi nii bu dee am na lu ngeen koy fay na ngeen ko fay ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar